damay euh, d'abord commencer di gërëm di sant service d'hygiène départemental bu Pikine ci liggéey bi nga xam ne euh, temps yëpp ñu ngi ci euh, di liggéey boo xam ne dëgg la nit ñi yëgaguñu ko xëy na tey jii sax def nañ ko ci heure bi nga xam ne 17 heures la mais daan nañu liggéey te boobu ba léegi ñu ngi ci defar nañu marché Zing defar nañu marché Thiaroye marché yu mag yëpp dañ daan bàyyi ba guddi une heure du matin ñu dem dugg ci biir marché yi désinfecté ko tey jii nag ñu ngi fii ci Pàcc Lambaye muy aussi benn lieu de rencontre boo xamante ne li muy dajale ci nit macha allah baax na aussi ñoom ñu ñëw fi ñëw nañu fi tey suñu fi jógee dañuy dem marché central le poisson jaarale aussi mairie bu mag bi muy mairie Pikine jaar fa tamit désinfecté ko loolu da loo xamante ne li liggéey la bu am solo ci xeex bi nga xam ne ñu ngi koy xeex coronavirus donc vraiment c'est une occasion pour gërëm leen sant leen bu baax a baax mais aussi di ci profito di woowaat encore askanu Pikine yëpp pour que ñu xam ne geste barrière yooyu ñuy wax war nañ ko continuer adopté bu kenn wàcc sa loxo bu kenn bàyyi parce que bu ñu bàyyee rek xamuñu fan lay jógee te puisque xamuñu fan lay jógee nañu fagaru rek fagaru gi moom mooy dañuy raxasu régulièrement ak saabu nañuy jël aussi produit gel yi tant que ñu ngi koy am ku ko ci am di ko utiliser ku ko amul it saabu bi rek doy na waaye na loxo yi set

parce que jàngoro bi fi muy mën a jaar dafa bëri ci ay tuflit yu sew sax da ciy jaar dugg ci nit ñi te du ko xam parce que loo xam ne doo ko gis doo ko yëg. et sax ci aussi euh, di setal di di di moytu lëngoo yi di moytu daje yi di moytu joxante loxo yi yàlla mën nañoo dimbal te yàlla nañu ko yàlla defal ba ñu génn ci ak jàmm.